di ñaanal way tawadi yàlla saafara leen way dawali yàlla na yàlla yërëm te jéggal leen ñu fi des na yàlla guddal sa fan tënk sa saxi mbarke sun dund rek ñu koy baaxoo ànd geen ci juróom-ñetti waxtu bu jotee ci seen jataayu koor ci njàngaleem Mawlana Cheikh Ahmad Bamba Xaadimal Mustafa radiyallahu anhu wa nafa'a bi barakaatihi mel ni démb ñu ngi taxawoon ci fi muy wax lu jëm ci wàllu tuub bay wax ni cër yi nga xam ni ñoo war a tuub te mooy xol lamañ ak yaram mu wax ni kon wa taxiril badana bil iqlaaxi fa tawbu laa yazaalu bil qallaaxi loolu de dellu ci kaw bi maanaa tuub gi ñu waxoon boo ko dee rekk ci sa xol di tudd lamañ yi te astaxfirullah danga koy bàyyi ci sa yaram kon yaram wi danga ci bàyyi bépp mooy bu mu daan def ko defee loolu nag moo xam ca tànk ya moo xam ca loxo ya la ak yeneen waaye jëmmi yaram ñoom dañ ciy setal lépp loo xam ni mooy bàkkaar nga summee ko ci ba set wecc boole ko ne du ko rëccu ci sa xol mu ni cër yooyu benn bu ci nekk dafa am dëkkuwaay ak lu mu war dunde waaw ni nit ki di soxlaa xëy na dëkk ci yenn réew yi wala yenn gox yi waa yenn quartier yi ak ni muy choisir dund ci nii la bëgg a dunde lii la bëgg a lekk yu demee noonu eh, nee na sëriñ bi nee na maanaam cër yi tamit mu la waxoon muy xol ak làmmañ <clears throat> ak yaram wi leen lu ci nekk da am dëkkuwaay boo war a dëkk ak dund boo xam ni moom nga war di dunde mu ni wa watanil xalba wa watanil lisaan wa watanil badana tasfar bi xisaan moom la limal foofu kon mooy dëkkuwaayu xol dëkkuwaayu làmmañ ak dëkkuwaayu yaram soo ko toppatoo maanaam leen lu ci nekk fa muy dëkk nga dëkkal ko fa di ko jox lam war a dunde tuufu ci ak rafetal mu njëkkee xool kon mu ni tawxiidu rabbina wa niyatul xuyuur watanu xalbika bi xuutin fi duyuur nee na bu dee xol fan moo war a nekk dëkkwaayam bu doon réew muy tànn wala quartier nee na mooy wéetal yàlla suñu boroom bu nekk dëkkwaayam lan la war a dundee nee na mooy yéene aw yiw yéene aw yiw xol bi day fees dell ak yiw ak lu baax di ko yéene boppam waaye na di ko yéeme mboolem mbokk jullitam yépp mboole mbokk kum kuy doomu aadama rek yéenew yiw rek nga xam ne koo gis ku ne am lu ko yiw loolu mooy dund xol dëkkuwaayam mooy wetal yàlla watanu lisaan lisaani dikrullahi wa qawlu xayri xuutuhu wallahi na làmmañ moom dëkkuwaayam mooy tudd yàlla dëkkuwaayam mooy tudd yàlla dundam bi nga xam ni moo koy dundal mooy wax yiw moom tamit wax lu baax loo gis mënoo ca wax lu baax nga noppi ca ndax salaa sallam xam ni euh, ku mun ku gëm yàlla gëm yomal xiyaam fal yàqul xayran aw li yasmut boo munta wax yiw mun a wax lu njekk mun a wax lu baax nanga nga noppi moo gën ci yow ca man sama tanaja kon làmmañ dëkkuwaayam nee na mooy tudd yàlla mooy réew mi mu war a dëkk wala kër gi mu a dëkk waaye lu koy dundal nag nga xam ne moom moom lay moom lay dundee nee na mooy waxu yiw ak njekk ak loo xam ne lu baax la watanul jasadi fi'lu waajibi wa man mandubin bi xayri bi nee na dëkkuwaayu yaram yaram ci boppam nag dëkkuwaayam mooy def lu war ak lu ñu sopp waaw def li war mooy li nga xam ne ay farata la ak lépp loo xam ne ko sopp ci jëf ju baax foofu la war dëkk kon lu muy dundee mu ne wa xuutuhu al mubaaxu si nasiixa nag li xaadaxa man xaada li fasiha nee na dundub yaram mooy lépp lu dagan lu am njëriñ moom la yaram di war di dunde lépp loo xam ne rek lu dagan la lu lu lu am njëriñ loolu mooy dunduk yaram ginnaaw bi nga xamee ni def lu war ak lu mu sopp moo war nekk dëkkuwaayam sëriñ bi nee na laa laabire gii nag si nasiha laabire gii nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko xamal moom la wax li xaadaha man xaada li fasiha kan day mel ni foofu lañ yëkkate jataay bi yemook tamit yaakaar naa fi xasida googu mën a yem ci ndénkaan yi leen jox dig daje ba subaak jàmm yeneen fàttali rek mën ngeen ñee topp tamit ci waxtaan wi am ko ci seen Euh, seen YouTube Ndayane Vision wala Facebook mooy ND Vision bu subaak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa